ndax euh, jëf ju toll nii ku ko jëf dañ la war sant ndax moo na xam jëf te dara du ci fekk mais dafa xam li ko war te xam ne askan wi li joxe ci commune bi muy ay recette dafa bu parlement amee dafa a delluwaat ci ñoom moo tax mu jënd valeur toll nii ay centaine de millions li maa jënd na 400 yi ceeb ak 4000 bouteilles diw ak 50 tonnes sucre pour jox ko population Touba xam ni itam lii maam lu ci fu waay nekk moom moo yor a jox lépp lu war ci yow. kon loolu ñu ngi ko ci remercier ci population tubaab bépp xam ne Abdou Lahad Ka maire ñu ngi koy ñaanal fanu gudd ak wér ndax vraiment daal lii moom ñëpp kontaan ci moom nan bàyyi nag di para chaque jour damay dégg ñi tëkkale maire bi ak maire Touba ak yeneen maire yi maire Touba c'est spécial bi ne spécial nag dafa tënku ci ndigal ndigal mooy dañuy jekk-jekk ni kat sëñ bi nee nan def nangam diñ préparé sax ci budget boobu dara mais dañuy yëkkati ci àllalam wala ci ci euh, plus rapidement ñu def ko pour loolu mën saafara ci ndigalu sëñ bi kon maire yi ci des ñi duñu roy ci ndax bokk ñoo ñoom nit ñi fale bokk nag ñoom itam nit ñi nit ñi condition kon il faut que population ba xam loolu moom daal naka ñëpp ñaanal ndax lii tam ab tàmbali la de ndax njëkkoon naa joxe 10 millions plus 3 millions produits pour jox ko maanaam euh, waa service d'hygiène ak santé kon bu yëkkatiwaat lu toll nii defaat ko kon euh, maanaam dañoo dañoo xam ne itam yëf yi nan ñaan yàlla yaa waaye bu bu fekkee dafa continuer itam day maire day continuer waat pour population bi ñëpp gis seen waa waaw séddale bi itam moom loolu moom suñ bakkan lañ ci gar. képp koo xam te ni woo ko munoo wax ban jox la ci wenn fepp ndax néew ji doole yi lañ koy jox loolu na leer ñëpp duñ ko jox koo xam te ni ma ay magasin am na ceeb wala ay manga mën naa am loolu jamais duñ ko def suñu bakkan lañ ci teg képp koo xam daal ñun xam nañ dëkk bi xam nañ ñu ko yelloo danañ dem jox leen ko kenn kenn fa nga nekk ñu yëkkati lan la la nga ci yor am jox la ko moom na leer askan wépp néew ji doole yi lañ koy jox sama kaa gi taxuñu nga jox ndax mën na mën na jënd ceeb waaw na leer kontaan li nga xam ne monsieur Lamine Abdoulaye Ka def na ko mu nekk ay ceeb ak diwlin mu war koo jox waa population bu Touba. li ma si doole nag mooy buñ ko dee séddale dañu xool ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yooyoo ñu jox leen ko te bañ ko dugal ci ay magasin di ko